bokk na ci li ko motiver muy que ne kii di président bu cour d'appel mu ngi jéem a wut euh, wala sax amagul ay magistrats yu nga xamante euh, dina ñu favorable pour ñu mën a annoncé benn verdict bu nga xamante ni dinañ ko daan euh, daan boo xam ne doo koy tere mën a bokk ci élection yu 2024. Babacar xam nga réew mu nekk mu am ay intellectuel war nañu moytu yenn débat yi ku muus ku muus day moytu yenn débat yi yàlla xam na ko waaye débat yu terre la ñu àndil. Mm. xam nga ñun waxaatuñu waxum quatre waxatuñu waxu Mame Mbaye li ñuy daan Sonko la ñuy xaar cest à ci ban réew la ñu nekk ci ban réew la ñu nekk. Sonko lan la def ba ñuy wax dañuy wëri koo xam ne day càmbaar war a liggéey ak yow maanaam Keita ba doon liggéey moom kon moom <laughs> ku koy jàppale moo jékki rek génn deux mois yi vingt neuf xam nga deux cent millions yi ok d'accord kon si si sa ngoog maanaam kon toll nañu foo xam ne kenn xamatul looy def saa ñu defee ñu ne noo am na ñuy fàtte woon am na ñuy desal Babacar àgguma ci li ñuy daan Sonko àgguma foofu bu ñu yóbbu ci débat boobu li ma gëm mooy. ma Mbaye fan la kàddu kii di Ousmane Sonko la. nangu naa parce que moo xew moom la ñu bëgg quoi dalay wax li ñu bëgg ñoom waaye di li war a am Sonko dalay wax li gaa yi nar. li ñuy cherche ñoom dañuy wëri ku leen di wërali fu ñuy condamné Sonko. Sonko bu nekkee fenal na waa ji dafa soxla ñetti nit ak juróom. loolu daa yomb est-ce que su fekkee loolu la. mën ngaa jàpp ne mën na ci mucc bu ñu gisee dossier bi li nga xam ne bi ñu ni ñu ko enrôlé ni mu gaaw bi ñu ko àttee laata sax un mois yi nga xam ne moom la ko yoon may mu xool ba xam day euh, interjeté appel wala déet enrôlé nañu dossier bi pour le 17 ñu toxal di daaxaat ko ba le 8 bi te mu ne. Euh, li nga xam ne moo war a dàq bi muy que ne président bu cour d'appel dafay wut ay magistrats yi nga xamante ni dinañ favorable pour ñu mën a annoncer benn verdict boo xam ne da koy tere bokk ci élection yi est-ce que su fekkee loolu am na même bu defaatee demee ko gaawalee waat comme ni ni ko ni ñu ko enrôlé cour d'appel ni mu gaawee décision bi nekk définitive bu dootul mën a bokk ci élection yi. maanaam débat boobu laa bañ ñu yóbbu ñu maanaam li gars yi nar noonu Sonko signalé ñu ko. Mhm. nangu naa Sonko mën na am sentir na ko la ñu informé damay bañ ñun en tant peuple kuy liggéey ak gaañ yi pour ñu mën a def xam lan lu normal. est-ce que su fekkee loolu mooy seen bébét jotul ñu ñu waxtaan ci parce que euh, amaana mën na juri ay conséquence wala bu bëri di ko tiit muy fexe ba kii di soo ko du bokk. ci ci ay élections kon kon da nga may comprendre lu tax waruñu def loolu débat parce que bu ñu ko gëmloo ba ñu nangu ne dañ koy defi du ñu def lu ñu bëgg ñun du ñu def lu peuple bi bëgg te nag nañu conscient. Mhm. li ñu bëgg niñ ko xool bu baax yonent bi newoon na boo bëggee def benn mbir xoolal conséquences yi. su baaxee nga wéy su baaxul nga taxaw est-ce que ñoom ñu ngi nat ñoom <laughs> dama yaakaar ne Babacar. Mhm. dafa dañu yaa quelque chose boo xam ne ba tey li kii économiste la Xaadim. nan la tudd Xaadim Bamba dafa naan malheureusement ñun ñi mo boroom xel yi li ñuy gis wala gars yi di ko dis fekk c'est trop tard mais jàpp ma ne loolu ñoom wite la mais lu ñu tey la Babacar nañu toog réfléchir li ñu bëgg moom. su nekkee ne mooy élimination ko conséquences yi lan la Babacar. Mhm. nañu xool maanaam nit maanaam boo dofee defuloo xoola bu baax yow. Mhm. ab réew mu toll fii ci yaakaar ci benn leader am yéen ñu dénk leen suñuy bien kenn ñu may wax ne yéen a ko lekk kenn ñu may wax ne sa bët suufa nga ci lu nekk ñu taxal ko sa waa kër lu ne ñu gis ko fàng ay rey ay nit dee ñu tëj ay nit ñu lekk suñu milliards suñu xaalisu Covid. suñu si teel leeragul gars yi lem loolu yëpp éliminé Sonko lem ko Sénégal ni nemm Babacar réew moom yàlla bind ko ñoom nañu toog xool bu baax a baax a baax li parce que ñoom pour moom comme naan ndox quoi gis naa Antoine Keroog génn di wax ay cocktail lu xam a mën a tëf la xama mhm. boo demee ba yow ministre l'intérieur yëf yi jaaxal la yow da ngay gis ne xaw naa troubler say troupe da ngay dëkkuwaat ne dañuy ni ñuy défendre dafa wute façon nga xam ne booy jaaxal nañu la justement mais Oustaz foofee parce que da nga ko laal mu am mu intéressant euh, euh, Antoine Diome nga koy wax mu ngi inter interpellé wu jeunes yi peut-être ci ci loolee cocktail molotov yi mais am na lu gën a danger pour man lu ñu waroon a njëkk a réglé balaa ñuy wax cocktail molotov muy affaire nervis yi ñuy gis armé wu ci kaw askan wi di leen dóor. voilà Babacar moo lay wan nii li ñuy def xamuñu ko maanaam mesure ñu c'est-à-dire pour moi man dama leen bëgg ci seen démarche man maa koy jox nguur gi comme xëy na nag <laughs> pour man du ko tuddee sax conseil parce que koo xam ne dafa reeb fu mu jëm. parce que barki Demba Ndiaye lañ fi fàdd ab ab ndaw ah, xale ah, mu mu génn àdduna moo lay wan je foutisme ngeen baal ma ci terme bi ñu nekkee bu njiitu réew mi toogee naan ku gédd sa yaay aye nañu nangu suñu yaay ñu ay parce que bu ñu géddee suñu yaay daa ñu yëkkal ah, waa way na xam ne ñun dañoo gedd suñu yaay ay bu ñu demee suñu yaay yëkkal ñu. ah oui daa neex de bu nekkee soo géddi say ay saa du say ay yekkal la xam nga fu olof jëlee wax jooju suñu yaay ay daañu yekk añ ba suur Ousmane Sonko yaay ma ay te dina ko yekkal na gedd mais Babacar logique boobu laa bëgg ma delloo soldaar si ñuy exécuté loo ak seen ministre de leen rek ka leen di wax loo ca kaw xam nga lan la mesurer leen conséquences yi fi ngeen jëm wa rabbul kaabati mesurer leen conséquences yi alors euh, mesure de conséquence yooyu parce que dañu dañu wéy rek ba tey ci ci dossier judiciaire am yooyu euh, euh, diggante mag Mame Mbaye Niang dégg nañ ñu ngi ci wax mais ba tey bu jógee ci boobu même bu ci rëccee am na beneen procès bu koy xaar le 16 moom mën nañoo le 16 Ousmane Sonko ndax le le mois de mai bi bon parce que le 16 encore ci la dossier bi nga xam ne ñaari at mu mu retenir lii di souffle sénégalais ñaa ngi koy fàttali léegi ay ndaw ñàkk seen bakkan ñu bëri jëlee ci ay gaañu gaañu ay yàqu-yàqu matériel yu bëri am ci ñu ngi ko retenir foofu ci chambre criminelle pour le 16 bi la ñu dëgmal euh, ñu war ko war ko àtte est-ce que euh, dossier boobu jàpp nga ne kii di Ousmane Sonko euh, mën na caare ci wala sax leneen lu gën a yitteel aussi nit ñi est-ce que pare na pour dem ci procès boobu su fekkente ne moom noonu lañu dossier bi yegg na ca terminusam ak ñàkkaa dem ca projet moom lan lañ ci mën a xaaral ni ay conséquence bu décidé na du dem. waaw loolu mooy li ma wax sànq nguur gi bàyyi seen xel ci démarche yi ñuy def xam nga Sonko ba mu setee ci dossier bi daa yàgg parce que du Sonko moo setal boppam lañ yaakaaroon mooy taqalit moo ko setal Sitor Ndour mu ngi nii certificat médical la ñoom ñu téye ko bi ci yàgg ñu ne deful wala bokk mën naa ñu bi. am na ñu ñu ñu bàyyi ko. waaw la certificat médical bu gën a leer bu Sitor Ndour nga ne non non ñett la faaw ma dem àtte ko quoi. d' accord nañ demal àtte ko mais la nga def si toon nduur di ko ko def de loolooy maandu la nga def si toon nduur moom bosam bu ne fàng nii ñu bind ko nii leste bu leer ba yaayam génn naan dénk na boppam boromam te may wax avocat yi bàyyi wala juge borom bi dana dajeeg ñoom laaj leen si toon nduur fa mu toog conscience am la mu def doomu jàmbur su nekk moo ko def conscience am mooy tribunalam la mooy tribunalam Babacar Sonko dafa set balaa ñuy àgg le Sonko nag lañ ko yóbboo. déedéet ah, pour bëgg ko tax du euh, peut-être euh, chambre criminelle moo koy setal wala moo koy taxal. Babacar dafa am yoo xam ne bu àggee ci mbir xam nga dañu la naan la. ci mm-hmm. suñu charia terme benn terme juridique la quoi al bayyinatu ala man iddaa wal yaminu ala man ankara c'est-à-dire Babacar soo ne oustaz moo sàcc sama portable yow yaay andi preuve yi wane ne maa sàcc sa portable. xam nga lan lay xaar ci man. Mm-hmm. billaahi sàcc ma ko. Mm-hmm. loolu la ñuy wax man gis nga soo ma waaye dama dama naan na billaahi sàccu ma ko jeex naa ci loolu la ma charia di laaj damay man sàccu ma ko laay wax même boo dama naan billaahi sàccu ma ko Babacar ne yaa ko sàcc Babacar na joxe provision ne sàcc portable am mais du man maay ñëw di wane ne sàcc ma man nan laa nekk yow nga jiiñ ma nga war a leeral amoo looy leerale man maay leeral faf Sonko nangu lan ko va-et-vient fi tribunal benn ñu yërëm ko. lu ne mu teg ko malgré loolu yëpp euh, li ngay wax nii xëy na euh, dossier bi mën nañu nañoo ne Adji Sarr moo accusé kii di Ousmane Sonko peut-être ñu mel ni yow tegut ci table ji lu nga xamante ni mën naa indi doute sax si seen xel waxuma la lu ñu dupp ay preuve ñu nga jàpp lool euh, Sonko ca côté ga ngeen ne teg na ci table ji lu nga xamante ni setal na ko malgré tout dossier bi yóbbu nañ ko chambre chambre criminelle ba daal di ko retenir pour le 16 bi la ñu dëgmal. est-ce que kon loolu tamit warta mën a tey xel que moom su fekkente ne li ngeen koy waxee euh, jubluwaay bi mooy gal gal ko ba man a bokk ci élection yi mën naa am lii dina dal ci kawam. xam nga lii di procès Adji Sarr lii di procès Mame Mbaye lii di troisième mandat dëgg dëgg bëggatuma sama nekk débat ci réew mi mais comme ñun yàlla dañoo nattoo. dafa mel ni suñuy xel yi ngelaw li moo koy yóbbu. et bu neexee gars yi ñu créer ñu benn débat mais nangu naa ko nañ ci waxtaan xëy na du ma tayal mais yooyu du débat xamul tax. xam dara bu leeree ba pare nga bëgg nekkaat pour lëndëmal ko yow yaay mu mujjee lëndëm mbir mi dafa leer nañ nañ nañ mais comme dañ ko souligner waat. Mhm. pour lan ñoom ñoo xam maanaam daal li ma leen di wax nañu mesurer nañu mesurer conséquence Sonko du bokk ci élection mesurer conséquence Macky Sall la day def troisième mandat maanaam maa leen di ñaan ñoom ndax xam nañu peuple bi ay seen psychologue nañu leen woo seen RG nañu leen woo il faut ñu toog maam maa ngi ñaan nguur gi ñu toog képp ku ñu yaakaar ku xam luy société maanaam le psychologue la le sociologue la maanaam le le maanaam képp ku xam secret doomu aadama ci réew mi war nga toog a ñoom nga laaj leen réew mi fan la tollu ci mer ba toll fii nga xool almel bi koy kosat xam nga ñu ngi jàmbat naan noo gars yi dañoo pacifique vraiment xoola ni ñuy tëjee nii dafa am élément déclencheur nguur gi xam na ko bu baax xëy na nag day làmb di xool naka la mais fu muy takkee la dul xam ngir yàlla su ngeen bëggee seen réew te jot ngeen fi liggéey nee ngeen non liggéey ngeen fi seen croissance macha allah nee nga benn prisonnier politique amul alhamdulilah gàcc ma wàcc leen lañ leen joxoon ci heure jeex na ñu bi leen benn nag ngeen ne non duma ma dindi sama loxo ci ndab li ñuy seppi sa loxo ci ndab li wàccox ko ci biti loolu lay bañ. nañu mesure ko parce que toog sa bureau di bind ay décret mhm. toog ci sa bureau di joxe ay affaire attention dafa am lu ñu xam gis nga dans ci armée Babacar ci armée fa ngay foogee fippu ba du fa doon Babacar man mii defuma armée mais armée fa ngay foogee fippu ba demal Guinée loo bëgg demal Guinée ku fa nekk général la mhm. ka jërëjëf ma général la du général demal Mali général la lan lañ mën a lan lañ mën a déggee ci loolu. c'est-à-dire gis nga gis nga injustice buy dox. Hmm. ñi koy lànk da leen fa dul foog loolu laa leen bëgg a wax dañuy def ndànk injustice buy dox. ñi koy contrecarrer. fa mu maanaam da nga da nga wax ne li ñuy teg loxo ñuy wax 300 nangam jeunes yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci kaso yi euh, dañoo ba léegi dañoo yeggagul ci élément déclencheur moo tax résistance euh, bu bu bu xeex loolee jógagul. xeex bi bu déclenché du déclenché ci benn côté ci population bi de day déclenché secteur yu bëri day déclenché secteur yu bëri parce que fépp di baax ne teg di xaar ci ñu jóg kubéeru ci gi jóg xaw ma nag ndax ñoom bëgg nguur. àgg na leen ci naïvité ñu ne non c'est pas grave comme ni nga déggee Xaadim Samba à l'époque naan xët xët du dem damm waaye génnaat na ca réew mii nit dina ci toll lemal ñu suñu projet lem Ousmane Sonko toogaat di nelaw Sénégal doon Sénégal Babacar loolu lu waay naïf naïf xam nga ne du ne. d'accord moo tax nañ jëm leneen ngir yàlla te tegee lii jox ñu suñu réew ñu gunge démocratie gunge génération yi ñu jëriñoo réew mi moo gën seen théâtre yi wallaay Babacar dañuy théâtre nguur gi dañuy théâtre billaahi ah. ay théâtre la. waaw bu dee bu dee théâtre nag théâtre ba nar naa gudd lool parce que. beneen dossier jógaat na fan yi ñu gis division division des investigations criminelles woolu kii di kii di kii di Babacar Touré déglu ko gannaaw bu nga xamante ni kii di kii di euh, Frédéric Nappel mi teg plainte ci table ji ci ndodd ko Babacar Touré moom ak Ousmane Sonko war nañ ko déglu ko mu confirmer plainte am euh, Babacar Touré jamono ji ma xëy muy ab journaliste mu ngi garde à vue ba keneen ko bokk ci dossier boobu di Ousmane Sonko mile tey sax mu ngi ci ñëwaat ba am ay ay mbir yi nga xam ne joxe na ko fësal ko ci Frédéric Nappel aussi njorto mu nekk beneen dossier euh, bu ñëwaat euh, nar a sonal kii di Ousmane Sonko fi dëkk 2024 euh, googee xam nga ku ëpp ko koo ëppali mbokk mënoo ko jëw waxu wolof la xam nag ban wolof ak àndi ku ëppali mbokk mënoo ko jëw tamit il faut pas ñu jàpp ni Sonko benn nit la buy taxawaalu quoi koo xam ne xamul bu mu jëm léegi nga dégg ci plateau naan du politicien xamul stratégie politique te moo la teree nelaw gis nga Sonko gis nga fi nga maanaam yow foo koy jëyee am na fa mbokk moo tax dañu def ndànk ci mbiram lu tax mu delluwaat ci lu tax mu delluwaat ci dossier boobu moo tax dara soo ko songee da ngay am stratégie yow ki ngay song lu mu ci am ñaata la maanaam naa ko faagaagal te xamoo waa yan élément la yor ci élément yi ko bëgg faagaagale maanaam yow yaa ngi bëgg am élément yooyu faagaagale waa ji yow calculer woo ñaata élément la ci am tamit pour man la contrecarrer wala faagaagal ak bosam même mooy nguur gi ñu demee maanaam dooleem la yor xamul kan moo mën a contre carré dooleem jàpp ne ne amul te histoire li ñu wax ne peuple xajul ci armée loolu du lu ñuy lam ame waxatuma loolu moo tax bu ñuy dem ci dossier di feeñal yeneen secret gaañaa ngi toog lan ngay xaar ci procès Adji Sarr bi misaal laa la jox xam nga duma ci waxaat ne woon naa ko mais jour boobu projet yi génn ci këru Sonko nit dina dar gémmiñam su nekkee dina am aussi comme li ma li ma liir ma mel ni lu jógee ci ci ci moom ci ay ci ay communiqué nee na euh, bi mu bi mu bi ñu déggee ne projet bi jàpp nañ ko dafa ouf de soulagement la pour moom mu santaat yàlla parce que euh, ñu bëri xëy na ñu ko xamut euh, saaga nañ ko wax nañu wax ju ñaaw ci moom famille ñu leen ginnaaw waaye enfin am na occasion pour révéler révéler li nga xam ne mooy la vérité devant les Sénégalais éléments yi mu détenir comme ay preuve bu subis ba dina ko teg ci table ji.